أحمد ربا كونه لي ألنا حسمني من العذاب ولنا عليكم ورحمة الله mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu ak di leen bal ak fas yéene ànd ak yéen indi leen bis bu màgg bis bu am solo muy sant cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacke ibn Xaadim Rasoul cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacke Fadal ibn Xaadim Rasoul nekkoon juróom-benneelu xalifa Serigne Touba cant googu nag ki ko doon amal bokk ci njaboot gi di Serigne Galas Mbàkke ñu gën ko ci Serigne Galas Khady Gueye ren jii nag tombe woon ak fukki fan ak benn ci weeru décembre atum 2021 doon na itam fukkeel yoon ak benn maanaam onzième édition mu koy defee nag ci dëkk bu ñuy wax Touba Gueye Touba Gueye nekk ci région de Thiès commune bu Ceneba di cant goo xam ne nii da koy def jagleel ko waajuram ba cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke bis bi nag nin koy defee saa su nekk bi ñu xëyee ubbee nañ ko njàngum alxuraanul karim ci teewaayu mbokki jullit ak taalibe ak dëkkandoo yi ak yenn daara yoo xam ne nii ñu ngi foofe ca dëkk ba ak la ko wër. والعذيذ ما يجر الوصنا لغير نحوي ولغير ينسنا نفى الذي كيد الأحد وحنا شكيحنا في كوني لي وحنا حدمت بالله بنا من لعنا بلا لقاء gannaaw benn yu am solo yooyu nag ci la cant gi daal di wéy kilifa yi nga xam ne nii dañoo bokk ci njabootuk cheikh Mouhamadoul Fadal tàmbali nag di ñëw ka ci jiitu di cheikh Mouhamadoul Rafaïd Mbacke ibnu Serigne fallu moom mi nga xam ne waajur la ci sëñ Galas waaye itam xaritam la di ko ko jege ñëw na fa ànd ak ñenn ci njabootuk Serigne fallu ngir feeñal yéeneem waaye barkeelu ci bisub sant bi nga xam ne nii Serigne Gallas mu ngi koy defal waajuram bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ما رمت حمن بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى شهد لي ربي بأني عبدو لو قديم للنبي ويبدو هدم بنية أذى يلاح يقضي الذي ناذغني الإله دون مكاتب العبادات معا تغربي كل المذايا جمعا وجه الذي يحبني يبيد yawma wujuuhun su'adaa tabyaddu ajrul laziina naazahanii wa lam yatubuu shaqaawatun taduumu fii ummil kutub libaana annal muntaqa wasiila gannaaw teewaay boobu itam ci la bis bi di wéy ñu amal ko ci ay ziyaar ay bernde jokk ak mbokk waay itam jaamu suñ boroom ci loolu sax njabootug sëriñ fàllu gi seen teewaay ràññeeku na fa lool rawatina ñi nga xam ne ni ñoo di sët yi ci njiitu sëriñ Cheikh Mbacke Thiolé wajuram di sëriñ Abdou Karim moom sëriñ Fallou. sëriñ Moustapha mi nga xam itam mooy xalifa sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke moom sëñ Fallou moom itam teew na di mag ci sëriñ Galas mi nga xam ne ni tey mooy def cant gi di bis bu màgg boo xam ne nii naka jekk mu ngi ko jagleel waajuram wii di Cheikh Modou Lamine Bara ila ma la yuhib hadani alhadi fala adillu faman yuwafiqni fala yadillu hani maha siwari daawul akbari baqinatani minu xayru zuburi ila siwaya kullu man adani بثار في باق ذكر وهداني ما تورف ذكري ضلالي كما تجود لي بالحلال جاد لي الباقي بما لا ينفد كما ترى مني مبيعا ينفد كتاب ربي يا رفيقي أبدا بي كفاني الله من لم يعبدا سلامة الذي يلوذ بالحليم وبالنبي بي من المنفعلين شكرت من لي لا يوجه القدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجه القدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجه القدر في أبد وقادني بسر القدر yaa man bi am daayihi li yuftaxul baabu dunya wa uxra wa du nadarki albaabu yaa man bi am daayihi li yuftaxul baabu dunya wa uxra wa du nadarki albaabu wajaata fi baksasin lima afuuzu bihi bis bi nag ren ji ñu dara jaale ko ay kilifa yu mag loolu tax na nag ki nga xam ne ni sëriñ moo di sëriñ Assane Seck di xalifa ba Seck yebal na fa délégation bu am solo ba ñoo itam sëriñ bi dalal na leen tatagal leen ñu indi seen ab ziyaar ci bis bi ak seen yéene ci loolu itam yëkkati nañ fa ay kàddu kon ñu ànd ak yéen jataay bu am solo boobu nga xam ne ni gannaaw njàngum alxuraan mi ak bernde yi mooy jataay bi jëkk ci bisub sant bi le waaye sëñ Galas li ñu sentir ci yow. moo tax sa boy sëñ Canaba. moo tax sëñ Canaba Assane Seck. loolu dong ko ñor. looloo ko ñor. mooy sa yarute. mooy sa yar. ak sa mbaax. ak sa mbaax. ak sa teey. ak sa teey. ak ràññee. ak ràññee. ak ràññee. ak ràññee. ak ràññee. nit ku baax. nit ku baax. dafay ràññee. day ràññee. nit ku baax dëgg. nit ku baax dëgg. dafay ràññee. day ràññee. jamono dafa bari ay na ay phénomène te lépp a ngi ci biir waykat ba nee na daa way sëñ canaba wala xat saana al amaanata xayra siyaanatin falam tabaxas biha awaamilu dahri mën a dahru fene mënu jamono bi xew ak ni ko jamono tëddee ak ni ko jamono tëggee am na kër yoo xam ne du leen laal du leen laal nañ ko doxale ndax nañ ko doxale seeni borom nañ ko doon tënke nañ ko doon tënke yàlla yonent bi ak seeni dayoo donga ko waral yow nag sa wayjur loolu xamoon na ko woyof na ci baayam woyof ci magam ba yàlla dénk ko loolu. Serigne Fallou mi ko jur. keroog ba mu gane àdduna. keroog ba mu gane àdduna. la ko sëñ Touba ni. sëñ Fallou nii. sëñ Fallou nii. su ganewul woon fii. su ganewul woon fii. dem ci beneen ba mu gane. ëtt ba mu gane. danaa fa lëj le huit. danaa ni. yàlla bi rahmatihi. bi rahmatihi. man yasaaw. man yasaaw. wallaahu. sul fadlil aziim. jataay bii. jataay bii. ko yàlla yàggal. ak ñi nga seqal kër sëñ Touba sa kër maam ñi nga sa kër maam sa kër ndey ak sa kër ndey ak li sa kër baay ak ñi sa baay ngir yàlla ak ñi bëggoon sa baay ngir sëñ Touba ak ñi bëggoon sa baay ngir sëñ Touba ñi bëggoon sa baay ngir jëmmam ñi bëggoon sa baay ngir woyefam te diisoon gan te diisoon gan ndax ku sëñ Fallou jur sëñ Touba jur ko ak sa maam lim am ci sëñ Touba sa baay lim am ci sëñ Touba nga ne dégg ah sëñ Galas xam nga li xew lay ñoo ngi lay sant. ñoo ngi lay gërëm. ñoo ngi lay gërëm. ñu lay ñaanal yàlla. taw bii di leen jox nuyoo ak sargal lépp lu aju ci mbaam Amary Ngoone Ndaak te loolu ñu jaarale ko ci suñu baay sunu maam sëriñ Assane di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér yàggul. ba gàmmu gi desee ñetti fan ma dox ak sama tànk defe naa ca bunt ba laale fekk ànd ak Alaaji Jóob yaa ma dugal ba ci biir néeg sëriñ bi ma ne ko sëñ bi de dina ñëw seet si la ci bis bi ñu am fii ndax bi nga fi ñëwee ba léegi ëgsee guñ fi te yow kat sa kër gii la ma baay Abdourahim waxoon su nu neexee jaar ci bunt bi sunu neexee jaar ci ginnaaw li ñuy jaarloo ci bunt bi mooy Kër may Maysa Njaake gii di li sama maam gor 1880 maam Amari Ngoone daag ñëw fekk 1882 ñuy wattu alxuraan di ay gor bokk cajoor bokk lépp bi ñu demee ba jamono dox Mor li jël doomum tudde maam Taala góor gu mag ndax jëflante guñ daan jëflante ci tund wi sunuy maam nekk ca biir almeeri Canaba ñenn ñiy nelaw ñu dem ba ci jëflante sunu baay tuddeeti sëriñ alfa xam nga la ca xew yëpp yow mii say waajur ca caaren gee lu nu mus a xew ci kër gi lu nu mus a am fa dem kon xam nañ bu baax seen cër ak kan mooy maam Amari Ngoone Ndak fii li kii doon wax mbokk gi dafa jiitu pas bi ndax ndaag maas gi moo jur amari ngoone mhm. yaxa maa sigi jur samba naar ma mbedd mu jur ngàcc ngàcc jur bunaama bunaama jur waajuram bu jigéen jur ma man mii kon xam nañ luy canaba nit boo xamee sa bopp doo sonn kon boo xamee sa bopp xam nga ku ne lu dib cëram kër gi kër sëñ canaba kër gi lu fi dog sëñ canaba ndax moom lañu gis moo ñu gën a jige kon kuy fàttaliku wala nga jaar ci histoire dëkk fii ci tund wi xam nga lu doon diggante may sa njaake ak maam Amari Ngoone Ndak kon ñun waa Thiénaba lañu ci ak mbokk waa Thiénaba lañu ci ak dëkkandoo waa Thiénaba lañu ci pas-pasub lislaam kon kër gi dal na du fi jóge lu dul luy yëkkati ca kaw ca kanam Thiénaba ndax nit boo bokkee moom séq moom dëkk moom di partager seen bànneex di partager seeni i naqar te sa bu bët xongee nga dem ca moom fajal la ko kon loolu weesul kilifa kon sëriñ bi yàlla na yàlla yokk seen taxawaay tànk yi ngeen dox sëriñ bi nee na yàlla na leen ko yàlla fulal yàggal sunu baay Assane ci jal te li mu fas yéene liggéeyal maam Amari Ngoone Ndak yàlla na la ko yàlla may ba mu weesu njortam ci darajee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ Sarr lii boo doon kàddu yi ñu ngi lay gërëm di la sant. dolliku na nee na sant yàlla dong la ciy ak ñaanal leen yàlla nee baax na. tàlla tàllal leen. naaw jotaay bu am solo boobu itam cant gi dafa wéy mbokki taalibe yi mbokki jullit yi rawatina nag njabootuk sëriñ Fallou di teew si ku ci mel ni sëriñ Xaadim moom sëriñ Abdou Fata teewoon na sëriñ Xaadim Modou Baara bokk ci njabootuk Guy Mbind moom itam teewoon na njabootuk Cheikh Modou Lamine njabootuk sëriñ Fallou ci set yi ci soxna yi ñoom itam kenn demun ñu des seen teewaay ak seen jàpp ci bis bi ràññiku woon na malaktani amamil kan laa yafuudu bihi man quutu doon aw tasqiiqi misqaabu wajjaxtali karaman laa tansani abadan anni walin qadafi ma faata aqaabu laqad barata fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin awa حجاب دون الذي قتلي مع ذو القدماء ولم يكن لي ما يأتي إعجاب علمي بأن إله إلا شريك له وأنك المنتقى يا بر يا تاب إلى جنابي قاد اليوم كل منن وانقاد لي بكما لم لم يغوي أقتاب ما أوت أن تقصد الأقدار في أبد يدوم صفوي ما لدهر إرحاب gannaaw njàngum alxuraan moomu bernde yi jokku mbokk gi ak jaamu suñ borom ak saafonte amal nañ fa itam jëf ju am solo muy consultation ak don de médicament gratuite maanaam ci ci teewaayu ay docteur yoo xam ne ni dañoo xereñ maye nañ fa ay garab waaye itam seetal nañu ñenn ci ñi nga xam ne ni teew nañ fa seen wér-gu-yaram te ñu dara loolu itam di benn ci ponk jaamu yàlla yi nga xam ne nii sëñ Galas barkeeloo na ko ci bis bi nga xam ne nii da ciy sant waajuram wa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke بردي إلى سوى ينتحى واسن وسقاب سلمت أهلي وما لي والعيال معا من الوباء وفي دارين ما قاب سلمت أهلي gannaaw loolu itam ci la bis bi daal wéy gannaaw julleeg tisbaar gi ci la amal ay bernde doora nag wéyal li nga xam ne ni moo di bis bi mbokki taalibe yi ñëw délégation yi ñëw bàyyee ko fu ne moo xam ñi nga xam ne nii dafa bokk ak ñoom diine ji moo xam xariti ak wëllëre yi moo xam kilifa diine yi kilifa aada yi rawatina nag ñi nga xam ne nii ñoo di njabootuk Serigne Fallou diiru bis bi dañ doon ñëw di ziar di fësal seen yéene ak ànd gi nga xam ne nii ànd nañ ko ak sëñ Galas ci bis bu tedd bile. gannaaw loolu nag ci lañu ñu amal ndaje mu am solo muy cérémonie officielle di ndaje moo xam ne nii ndajeem waxtaan la ndajeem soññante la ndajeem saafonte la ndaje moom nag ubbee nañ ko njàngum xasaayit ci kuréel ak rajas kon ñu ànd ak yéen ci ndaje mu am solo moom nga xam ne nii amal nañ ko ci bisub sant Serigne Bara Mbacke ibn Serigne Fallou onzième édition te Serigne Galas Mbacke ñu gën koo xam ci Serigne Galas Khady Gueye doon ko amal ca Touba Gueye le 11 décembre 2021. الدر رديل وليب جنانا بالمصطفى مختار من كنانا جل بما بأنير خيمة وخير بما أدى خشيمة نجي جنابي من جوار مشركة ومشرك بالمصطفى من مدركة بارك لي اللهم في قياسي بمن جلت وديا إلياسي انظر جنابي بإن شر وعدر ولك خرمني بجاء ابن مدر نبى سلقا عبدا لمولا يهدوا خديما لمن عندك كلب تلسن نسبت بنا الميني بالحق ماديا لبدن ولا خلق ونا أن ديدن نويت الدوام سكري وسكري خادما لخير الورى لمن عسنا مسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجم خريب ساكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يصن نبيه أديب صايا موسب نسير لمن بالكبر والصدق يهلن نسون بلا قسم alimun muhallamun saqiyun bila manin kala man yulayinu najibun ajibun nasibun huwa nasibun huwa lamiru naayina si xayrin lanu naqibun raqibun musajibun musasabun masiun malasun huwa maayinu musinu nasibun asibun sowataaya muxaddamun huwa naasu almisaanu masaana jàq jaaxle moom ci moom ku mas ni jàkk nag ci moom sab jaaxle jeex seex jiili moom ku mas di tàlla loxoom dootoo jogaat di sàkku ku toog moom sa xel ma dal ngir ñëpp daal lay day daa di feexalew sa xol laaj la balaaj tey sa Seex Abdul Xaadir cay tukkee ma ñi man daloon ñi ma ñi ma ci fàtte bàlleen mat mat la alaaji baara fadilu alaaji baara fadilu baylaan moo ko wool woon ni ko bunge sa day aji yaa man bi faaraqani al imlaaku wajjahtuka al yawma وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مهوت أني ما به النفاق أن مها وجاءني النفواق ردت لي ما سأله الوفاق بمن بتنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما كاتلت عتابه بك احتوينا ما له نصاب صلى عليك الأكرم الخلاق دي الحروف كجميع الصلوات على النبي مجيب الدعوات دي الحروف كجميع الصلوات على النبي مجيب الدعوات آمين يا ربي وأزم أموري وفيك بالمختار كل أمري وسل يا ملك يا مجيب على الذي بجائه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وقلبي علمي وهبي الإلهام والبراء وهزل لسان وليرى واجعل كتابتي إلى النبي أحام من قط خيري وإليك يا محب وبكلام الزئ صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومه وبتواليه أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وسل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والسلب ولرفع كلمي وارفع قروتي بسكر وقبول وأيد الشيطان مني والخبير وسلم وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي مع فيه يرغب الكرام قبلي moo sama yigi xanaa nga bëgg nga ko ngoore gile may kay xanaa aras nga ko giire moo sa may gi xanaa gabo nga ko ngoore gi may kay xanaa aras nga ko giire ba nga tekkee saa mi may gi fa jurbel calambaa xaan ñalaabe ak ñoxomboore ba nga tekkee sa ambi may gi fa njaareem labawal jag ba dootu noori kajoori ba nga fenkee ci réew mi nga seexal gétti nañ kaang ma jiitu ak i foore daanu sugri min ma الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 sant mboolem koo xam ne teew na fi wala nga amoon yéene teew fi ak ku fekkee jataay bi ak ñi nga xam ne ñëwoon nañ te yàlla dogal ñu dellu ñu jiital ci délégation yooyu ñuy lim jiital ci sëriñ Ahmadou Rafahi mu Rafahi mu sëriñ Fallu moo fi njëkk ubbi jataay bi ca suba teel na fay ñëw lool gannaaw bi sëriñ Galas ànd na ak sëriñ Galas Mbakke moom sëriñ Tàkko moom sëriñ Fàllu ànd nañ bi mu ñëw ak yeneen mbokk yoo xam ne ànd na ak ñoom kon loolu lépp day wane fonk gu mu fonk jataay bi sëriñ Fàddulu Mbakke ibnu sëriñ Mamor Fàllilu ak sëriñ Omar Diouf Lambaay ak sëriñ Lamine Ba transitaire ak sëriñ Cheikh Mbakke Abdul Karim muy sëriñ Cheikh Colle waa kër sëriñ Modou Bousso Dieng tamit ñëw nañu fi teew sëriñ Salif Mbakke ànd na ak sëriñ Abdoul Karim Mbakke ak maam sëriñ Mbakke sëriñ Fadul Bousso Abdoul Kharija ak sëriñ Fadul Bousso Alhaji euh, Ñanga ñëw nañu fi teew sëriñ Takko Mbakke moom sëriñ Murtada ibnu Xaadimu moom tamit ñëw na fi yàgg na fi lool euh, Mor Waré Gueye maire meeru njaareem limaamu lay ñëw na fi teew ànd ak délégation bu rëy sëriñ Ibrahima Cubbo jóge ba kaw Kaolack teew na fi teewal fi njabootu waa kër sëriñ Ibrahima Ñas di Baay Ñas ak ñi mu àndal eh, nga xam ne fa la ñuy yandu sóoba bu sóoba ba tey sëriñ Amsatu Saaw moom tamit teew na fi sëriñ galas mbakke moom sëriñ abdul fatah sëriñ galas moom sëriñ abo fallilu moom tamit teew si sëriñ xaadim mbakke moom sëriñ abdul fatah sëriñ moustapha ibnu sëriñ ndaam atta ànd ak sëriñ saalihu moom sëriñ xaadim moom sëriñ ndaam atta tamit moom sëriñ ibrahima ñëw nañu fi teew sëriñ moodu baara moom sëriñ abdul xadim sëriñ moustapha buso ñoom ñëpp ñëw nañu teew waa kër sëriñ Sohaybu sëriñ Ahmadul Fadlu Sohaybu ñëw na fi sëñ Ahmad moom sëñ Fallum sëñ bu ñëw na fi yàgg na fi tamit sëriñ Basiiru moom sëriñ Jiili Fallilu moom tamit ñëw na fi teew ak sëriñ Abdoulahat Jiili moom ñoom ñëpp ci bis ñoo ñoom ñooy bis bi daal waa Canaba alxaaji Ngañ saar yàgg nañ fi ci suba lool yaakaar naa dellu siwaat nañ fi tamit porte parole xalifa ba ak sëriñ Mbay Sekk doomi xalifa ba ak satam satu xalifa ba tamit di sëriñ yu Ndaw ñoom ñëpp ñëw nañu fi teew ak sëriñ Modou Thian moom sëriñ Fallou alaaji Modou Thian Dakar moom tamit ñëw fi andi fi teraanga yu bari ak sëriñ Mourtala Mbakke moom sëriñ Abdul Fatah sëriñ Sohay bu Abdul Fatah ak sëriñ Galas moom sëriñ Abdul Fatah ñoom ñëpp ñëw nañu fi teew ak soxna ami da soxna ami mbakke daas ñoom tamit moom tamit ñëw na fi teew sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom alxaaji Baara li tax ñu koy lim moom day dugg ci délégation waa kër sëriñ Abdou Samad yi sëriñ Cheikh Baara Doli moom tamit ñëw na fi teew sëriñ Jili Loo Ndaam ñëw teewal fi waa sëriñ Abdourahman Loo ñëw na fi teew sëriñ Abdourahman Mbàkke moom moom sëriñ Moustapha Massamba ñëw na fi teew délégation Hizbut Tarqiyyah sëriñ ci njiital sëriñ euh, euh, ñu jóge fa ci sëriñ Youssou Youssou Diop ñëw nañ fi teew ci njiital sëriñ Youssoufa Diop sëriñ Djili Lo moom tamit ñëw na fi teew maire de la commune Talla Diagne ñëw na fi teew Thiam Teranga ni ko sëriñ Seydou limee woon léegi ñëw nañu fi teew sëriñ soxna Ndeye Marie Sène ak délégation bi mu àndal Euh, dafi euh, am dafi taraanga yu bëri moom tamit mi ngi ci biir baas bi euh, ñëw na fi teew sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Sam Ndula ñëw na fi teew ak ànd ak sëriñ Ibrahima Cissé sëriñ Abdou Samad Mbacké ci njiital délégation bi nga xam ne ñoom la sëriñ Galas tudde bi muy sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Touba sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Modou Fati Xari jiite leen ci kilifteefu soxna aji maam Bousso mi nga xam ne moo leen yabal mu ànd ak sëriñ Abdou Samad moom alhaaji Baara moom euh, moom sëriñ Fallu ànd ak sëriñ Abdou Lahad Jenn ànd ak sëriñ Xabban Mbakke ànd ak sëriñ Baara Mbakke moom sëriñ Galas moom aji maam Bousso ànd ak sëriñ Abdoul Fatah Mbakke moom sëriñ Galas moom soxna aji maam Bousso ànd ak sëriñ Cheikhul Khadim Mbakke moom sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Modou Fati Xari ànd ak sëñ Abdou Samad Mbaye ak sëriñ Ibrahima Sarr ak yeneen mbokki taalibe yoo xam ne ànd nañu ak ñoom soxna Baali Mbakke mun sëriñ Ba soxna Baali Muntaqa yebal na fi sëriñ Maamun Loo ak yeneen mbokki taalibe yu ma àndal ànd ak délégation bu bari euh, andi fi teraanga yu bari moom tamit sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm waa kër alaaji baara yi nag moom binduñu leen ndax yëf yi seen yëf la kon daal loolu lañu joxoon ndigal ne nañ ko jàllale xam naa lu ci def sëñ Seydou dana ko mottali wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw loolu lii sëriñ garas dana ci ñëw mooy waa kër gi incha allah kon sëriñ Fallou yow mi wootee jataay bi euh, ba loolu lépp man cee daje ñu ngi lay gërëm di la sant di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk la ak wér yokk la ak man te guddal saw fan ba nga gën koo man ni ko seen Cheikh Cheikh Abdoul Ka waxe nag dañoo nekk ci diine joo xam ne jàmm rekk la indi lislaam jàmm rekk la indi euh, bokk na ci lii tax ñu xam ne lislaam jàmm rekk la indi mooy sooy nuyu sa mbokkum jullit danga koy ñaanal jàmm danga naa ko yàlla na la jàmm dal yàlla na la yërmaande yàlla dal yàlla na la barkeeb yàlla dal kon sooy nuyoo dangay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ki nga xam ne moom nga nuyu bu lay faytam ñaanal la li nga ko ñaanal kon lislaam diine jàmm la doomu aadama jàmm rekk moo ko jig doomu aadama ñetti jaar-jaar la am mooy dafa ñëw ci àdduna nekk fi su ab àppam jeexee mu faatu dugg bàmmeel bu ñu walee bëfte ba mu dekki dem bis penc kon nit ki juddu ñëw ci àdduna jàmm rekk moo ko fi jig nit ki faatu dugg bàmmeel jàmm rekk moo ko fa jik nit ki dekki bis penc itam jàmm rek moo ko jik moom la sunu borom di wax ne wa salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubaasu hayya kon nit jàmm rekk moo ko jik wolof sax day wax ne jaboot jàmmay mbokkam waaye nit jàmm rekk moo ko jik bis bu ñu demee bis ba sunu borom boole ña ca way texe ya ba ñuy tàbbi àjjana te yàlla nañ ca bokk ñun ñëpp su boobaa malaaka yi buñ ñuy dalal baatub jàmm lañuy ñuy jëfandikoo dañuy wax ne yàlla na leen jàmm dal salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin kon malaaka yi su ëllëgee jàmm rekk la ñuy ñaanal kon doomu aadama jàmm la war a sàkku jàmm la war ñaan jàmm la war a fexe ndax jàmm rekk mooy mbokkam jàmm rekk moo ko jikk te jàmm su amul dara du sotti réew moo dem ci àdduna suñu amee jàmm mën nañoo développé waaye suñu amul jàmm dara du dox bu ngeen dee seetaan télévision yi gis ci réew yi nga xam ne dañoo nekk ci ay guerre di xeex da ngeen di gis na lépp day taxaw kenn dootu liggéey kenn dootu jàng kenn dootu dem ak dikk kenn ku nekk foo làqatu ngir rawali sa bakkan képp moom ngay tal kenn du tala jaamu yàlla kenn du tal dara loolu nag bu ñu ko gisee gis ne am na réew yu mu dal te yàlla musal senegaal ba fii mu ne muy réewum jàmm kon jàmm jooju lu koy suuxat ba mu sax fi kenn ku ne ci ñun war na cee bay waaram réew yi ñu wër rek duma ma tudd menn réew xam ngeen am na réew yoo xam ne jàmm amu fa bis boo xëyee dégg ñu ne rey nañu ñeent fukki nit rey nañu ñaar fukki nit rey nañu juróom fukki nit ñuy reyante te la tax ñuy reyante ñun ñëpp xam nañu ko kon suñu ko moytoo daw ko yàlla mën naa def jàmm ji nga xam ne moom lañu am ci ci sunu réew mi su boobaa jàmm rekk moo fi sax Serigne Touba nag nitug jàmm la woon ndax nitug jàmm mooy koo xam ne doo tooñ te ku la tooñ nga baal ko Mbàkke Kajoor la wootee mënoon na faa dëkk dëkk ndax Mamor Anta moo ko sanc waaye dafa woo rakki Mamor Anta muy sëriñ Ibra Mbacke Mbacke Kajoor fekk ma nga ca wetu kokki dëkk bu ñuy wax ndal la mu jëli ko andi ko jox ko Mbacke Kajoor dikk Mbacke Bawol muy dëkk boo xam ne maamam moo ko sanc mam maaram mënoon na faa toog waaye da ko bàyyee ñam ko séqal dem sanc dëkku boppam tudd ko Daaru Salaam daru salaam nag ku ne xam na ne baat bi li muy firi weesuwul kërug jàmm kërug yàlla mi nga xam ne moomam jàmm te teewul muy ñaan naan ijaal salaamatan taduumu yaa salaam liya wa lil iyaali fii daari salaam kon moom jàmm rekk la doon woote daana wax ne day leen moytu tooñ tey moytoo fay nga xam ne kon taalibe Cheikhul Khadim wërta tooñ wërta fayu te defe naa ne soo tooñul fayuwoo jàmm ne ñooy doo tooñ te ku la tooñ nga baal ko soo ko sàlloo jàmm ne ñooy mu ne dee leen moytoo tooñ tey moytoo fayu ndax kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ kuy fayu du am jàmm bu fekkee ku la tooñ nga fayu doo am jàmm kon jéggale moo gën a noppale moo tax bi mu gisee ne nit ñi kenn ku nekk dangay bàkkoo fa nga bokk naan imam malik mooy waaja ñi naan imam ahmad ibnu hanbal mooy waaja kenn ku ne di bàkkoo sawaay dafa wax ne man ñoom ñëpp ñii ngeen di bàkkoo man ñooy samay kilifa ñoom ñëpp laa yemale a'immati fil fil fiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal wal kon ñoom ñëpp ñooy samay kilifa bu gisee ko naan man taalibe cheikh laa wala man taalibi Cheikh Abdou Khadir Jilaani laa kenn ku nekk di bàkkoo sawaay te bu ñu bàyyee kenn ku nekk di farfarloo waayam du jur jàmm ci am réew ndax farfarloo day indi fitna kenn ku nekk ne sama waay mooy waaja day indi fitna bi mu gisee nag mel ni loolu dafa bëgg a am mu ne man ñoom ñëpp samay kilifa lañu ñoom ñëpp laa jox cër ñoom ñëpp laa fonk mashaayixi sayiduna al jilaani wa shaadaliyu maahu tijaani kon taalibeb cheikhul xadim dafa war a yemale borom ñeenti ngir yëpp taalibeb cheikhul xadim dafa war a fonk kilifay diine yi nga xam ne ñoo ko jiitu ndax moom da na fonkoon bëgg jàmm tax na daana wax naan dee leen moytoo waxee bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontooloo bakkan ngeen féewaloo te féewaloo lu nekk xaj na ca kon soo waxee bakkan nit ñi dañ lay tontoo bakkan am na bataaxal bu bind boo xam ne da caa wax ne képp ku gis mbind mii nanga xam ne man mi ko bind jéggal naa képp ku ma tooñ kon moom mësta toppante jéggal naa képp ku ma tooñ te du ma ñaan yàlla sax ki ma tooñ du ko ñaan yàlla dama koy jéggal du ma ne ko bàyyee naa la ak yàlla way dama koy jéggal na ñëpp xam ne maa ngi sàkkul ñi aju ci man maa ngi leen di sàkkul njëggaluk yàlla daal ne waaye ni ma koy sàkkule ñi aju ci man noonu laa koy sàkkule ñi nga xam ne itam euh, ajuwuñ ci man kon moom ñaan gi mu ñaan yàlla ñëpp la ko yemale ñi aju ci moom ak ñu ajuwul ci moom mu wax ne nit ñi ni ñu mucc ci seen aju loxo nañ ko mucc ci seen aju làmmiñ ndax tooñ mën naa nekk ci loxo waaye tooñ mën naa nekk ci làmmiñ nit ki mën ngaa wax kàddu goo xam ne da nga koy jam euh, mu sori ci moom lool rawatina nag pas-pas nit soo ko tooñee ci pas-pas mën naa am du ko mën a muñ daana wax sax ne boroom xam-xam yi su ngeen gisee lu mel ni wuute ci ñoom ñoom wuutewuñu ndax ñoom seenug soppante ak seenug jàppante mooy dundal lislaam waaye bu ngeen gisee luy nuru wuute mooy méthode seeni méthode moo bokkul ndax kenn ku nekk méthode ba ngay jottalee sa mission mën naa wuute ak sa morom waaye ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy jottali muy téere bi yàlla bi ak sunna sidana muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu daan dénkaane naan yéen jaame yàlla yi na ngeen doon benn bu leen añaanante bu leen noonoo kunu ibadallahi ya ixwaani bila taxaasudin wala udwaani mu wax ne soppante dëgg-dëgg mooy gëm yàlla ku sopp mbokki jullitam na nga xam ne gëmam mat na sëkk waaye ku bañ sa mbokki jullit na nga xam ne sëg pas-pas xajam na mu ne inna taxaabuba huwa al imaanu li ahlihi sururu wal iqaanu wax ne képp ku bëggal sa moroom li nga bëggal sa bopp da nga am ngërëmul yàlla man xabba lil axi alladi yuxibu li nafsihi radiya anhu rabbu kon mbokk yi nañu xam ne ànd ak mbokki jullit yépp xam ne yéen bokk lu ngeen mënta séddoo diine lislaam kenn du ko séddoo alquran duñ ko seddoo sunna duñ ko séddoo Sénégal gii ñu bokk duñu ko séddoo te te sax senegaal dafa xat ñaare koo gëstu mu bokk ak yow dara Sénégal ñëpp bokk kenn mënta xas sa morom Sëñ Tuubaa daana wax naan koo gis muy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xamal ne sa mbokka bu ngeen waxtaanee ba gindikoo ba ak bokk feeñ xamal ne sa boppa kon sa mbokk lay doon wala sa bopp rek kon kenn mënta euh, sut kenn mbokk yi xam ngeen ne élection yi mi ngi dëgg dëgmal jege si na lool waa kër Cheikhul Khadim rawatina waa kër Alxaaji Baara bu ñu sañoon élection bu accès dañu koy def ci jàmm ak salaam def ko ci njëkk ak teraanga xam ne li ñuy xëccoo kenn ku nekk dangay wax ne danga bëgg senegal kenn ku nekk danga wax ne gox ba ma dëkk dama ko bëgg defar ba def ca loo xam ne sama moroom du ko man kon kon jongante ngir liggéeyal gox yi moo dëggmal si ñu wax nag ne bu ñu sañoon ñi koy séq ak seeni militant nañ ci tàbbi ci ngor nañ ci tàbbi ci diine nañu xam ne ñoo bokk lépp luñ mut a seddoo bis bu ñu demee ba élection yu jàll ba ca ëllëg sa ña doon xëccoo bu ñu dajee kenn ku nekk siggi mën a xool sa moroom mën a saafoonteeg moom waaye bu fekkente ne campagne bi kenn ku nekk danga ngaa daas saw làmmiñ di xas ay gor di leen dëkkale néeg yuñ dëkkut di leen weer boo xamee ci ñoom fukk yu baax gas ba mu xóot nga suul boo xamee benn safaan nga siiwal ko loola du defar ak bokk loolu du indi jàmm ci am réew kon élection yi bu ñu bëggee mu ànd ak dal dañ ciy dugg kenn ku ne xam ne danga ngaa bëgg a defar sa moroom bëgg a defar ñu bëgg a defar nag waruñoo xuloo ñu bëgg a defar waruñoo xuloo waruñoo xeex Sénégal nag bu njëkk réew la woon moo xam ne nit ñu woyof xol ñoo fi nekkoon nit ñoo xam ne yërmaande dañ koo bari léegi la ñu seetlu ne sénégalais yu baree bari rawatina ndaw ñi rey nit ak rey weñ la ñu yemale da ngay gis ku ñu rey ñu ne lan ñu ne dañ doon xëccoo quarante franc quarante francs quarante franc lañ doon xëccoo kenn ka jam moroom ji mu faatu danga gis ku ñu rey ñu ne lan la ñu ne dañu doon werante ñi dawal Jakarta ñi ngi rayante charrette yi ñu koy dawal ñi ngi rayante foo dem ña ngay rayante ba ko dem rek am na match football bu amoon ci senegal ci benn dëkk du ma ko tudd dañ faa rey nit ba dem am na am am na làmb ju amoon ci ab dëkk duma ko tudd dañ fa xaañ nit nga xam ne sénégalais bu jëkk daawul rey daawul xaañ am na ñoo xam ne boo leen waxee ñu ne man sax rey ganaar mënuma ko ndax xol bu woyof ndax xol bu rafet léegi nag ñu bëgg koo ginnaawal loolu ana lu ko indi mooy dañoo gannaawal njàngalem diine njàngalem diine lañu fonkatul njàngalem diine bu ñu ko fonkee ndaw ndaw ñuy nàmpatal ci moom diine def ci moom jikkoy jullit nàmpatal ko jikkoy taalibe su màggee du rey weñ waaye dañoo bërgël gone yi te gone yi bu ñu leen yaree bu ñu màggee jub Sëñ Tuubaa nee na wa minhu tarbiyatukal awlaada li kay yanaalu baadaha rachada nee na ndaw boo leen yaree buñ doonee mag dañuy jub kon waajur yi nañu laxasaayowaat ci seet njaboot rey bakkan dafa dafa diis rawatina ab jullit yàlla nee na ku rey ab jullit te tey ko wa man yaqtul muminan mutaamidan ku rey ab jullit te tey ko fa jazaauhu ak payam jahannama mooy jahannam te jahannam dugg génn sax yàlla nañ ci yàlla musal dugg ca génn yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nag nee na du dugg génn xaalidan fiha la wax da cay sax dàkk ku rey ab jullit day tàbbi safara te dafay sax dàkk wa xadiba allahu alayhi te yàlla mere na ko muy ñaar wala anahu rëbb na ko muy ñett wa wa aadda lahu azaban aziman te itam waajal na ko xaraw na ko mbugal mu tar mu metti mu màgg kon ab jullit soo ko reyee da ngay tàbbi safar dañ nga koy sax loola ndaw bu dee tuuti ñu koy jàngal diine di ko jàngal ne ab jullit day bari yërmande wax ko yërmande Sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yërmande saxaaba ya yërmande Serigne mag ña di ko nampotal ci moom mu koy màggaale di ko màggaale ba doon muskàllaf kooko su màggee du rey weñ waaye gone yi dañ leen a jàngalu diine dañ leen a yarut yarut diine moo tax fi mu lu xew manifestation yu fi amoon ci weeru mars ñaata nit ñoo ca faatu fukki nit ak ñeent fukki nit ak ñeent fukki bakkan ak ñeent ñoo xam ne ci maali foro la seen bakkan dem te ña leen rey ñi ngi daagu di dox seeni soxla di añ di reer defe ne duñu daje ak yàlla nañu xam ne élection yi ñu dëgmal ñi koy xëccoo doomi réew mi lañu ñoog ñoo ma dëkk ñu sant Diop sant Ndiaye sant Seck su élection yi jeexee ñooy dëkkaat doon ay bokk di dem lente kon nag buñ ci bëggee taal réew mi nañ xool réew yi ñu wër ndax bëgg na bëgg nañoo mel ni ñoom bëgguñoo mel ni ñoom bokk na ci liy indi fitna cim réew réseau yi sëñ bi wax léegi boo koy xool danga naan àdduna ngi tukki di xaw yi sutura yi gor di xas ay gor am na ku nekk bitim réew koo xam ne li mu yekk sëriñ Touba kenn mënu koo dégg nga xam ne boo ko gisee da ngay jàll li mu yekk alaaji kenn mënu koo dégg Cheikh boo Kounta kenn mënu koo dégg waa Ñaseen kenn mënu koo dégg waa Canaba kenn mënu koo dégg bàyyiwul kenn ñépp lay saabi tey doomi senegal naan dama ne boo ne ko dama ne mu ne ah démb rekk dégg naa audio boo xam ne boroom lam cee sañ sëñ Muntaxa kenn mënu koo dégg te nee na Tuubaa la dëkk kon yooyu ñuy bàyyi muy jàll gis nga képp ko def vidéo walla ojo bu ci état bi xaree tàngu tubayam dana ko jàpp dana ko jàpp te suñ ci jàppoon kenn wala ñaar wala ñett rëq seen ndigg yar leen dana yar ñu bari ndax gone xamul yàlla waaye xam na yar te am na ku nekkoon bitim réew daan sànni xeer di wax naka sa dul noona ba ñu bëggee mu ñibbisi dafa ñibbisi kon bu ci état xaree tànkub tubayam dana saafaraw waaye képp ku yëkkati kàddu goo xam ne duy teggin di ko teg ci kaw kilifa yi bis bu dong yi xamee ne diw mii la badar dekki te su badar dekkee nag day taal am réew ndax nit ka ko def bu dee taalibeeb cheikh ci misaal bu ñu ko songee dañuy defe ne murid yi dañuy tooñ taalibe cheikh ka tooñ sëñ Babacar Sy Mansour bu ñu seetee ba gis ko muy murit ñu dal ci kawam murit yi defe ne dañuy dañuy dañuy agressé murit yi fekk kuy tooñ jàmbur bokkoo ci njabootu Serigne Touba kon rikk na waajur yi delloo si yarub diine yóbbu seen doom yi nañu jàng luñ bëgg jàng ci xam-xamum àdduna nañu ko jàng waaye nag lay laytaay ja lay tax mu am njariñ tey ak ëllëg mooy xam-xamub diina na ko lal yarub diina na ko lal moo tax sëriñ Fallou mii woote bis bii li mu naal ci bis bi xam ngeen ko li mu naal ci dëkk bi xam ngeen ko xam nañu ko naal na fi barab muy am fi kër naal na fi daara daara joo xam ne bis bu sottee tund wi ku bëgg a jàng diine danga am foo jàng diine di jàng alquran di ko wattu di jàng xam-xam di ko xam ba noppi ñu lay nampotal ci jub ba soo màggee foo dem man faa nekk tubaab bi de ku mu yar bu waxee feeñ bu jëfee feeñ waaye sëñ tubaab rek ku mu defar bu waxee feeñ bu jëfee feeñ kon nañu delloo siwaat yaru mag ña teggin ya ñu joxante woon ak worma ja am na kilifa gu mës a nelaw ñu koy rob ci armée li Tuubaa yi booba Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi fi sëriñ daam abdourahman law mi ngi fi sëriñ bàkki boso mi ngi fi mag ñëpp a ngi fi ba ñu ko roobee ba noppi ba seex moustapha di dugg otoom di ñibbi daarul qudus am ko ko dab dee ko ne ko sëriñ ndaam ak sëriñ mbàkki boso amuñu lu leen yóbbu seex moustapha wàcce otoom ne chauffeur ba demal yóbbul moo sama baay yooyee dox ak tànkam ci armeel yi ba daarul qudus dox ak tànkam ci armeel yi ba daarul xudus te boobu mooy xalifatul muridin chauffeur ba ñëw ne sëñ ndaam sëñ bi nee na naa la yóbbu te yóbbu sëñ Mbàkke bu sow mu ne ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ba ñëw ndax moo ma gën a jege sëñ Tuubaa ñëw ne sëñ Mbàkke sëñ bi nee na naa la yóbbu te yóbbu sëñ ndaam mu ne ko demal yóbbu sëñ ndaam ba ñëw door maa yóbbu ndax moo ma jëkk jëbalu ci sañ Tuubaa joxante cër moo fi nekkoon noonu la mag ñi daan doxale léegi nag kenn joxatul cër kenn gone yi bu ñuy wax man dégg naa ñuy wax loo xam ne xawma lu mu doon ndayam lu ñu wax ne ndayam ndayam rek duma ndayam dem damay ndayam dem waa lan mooy ndayam lu ñu wax saaga lu ñu wax saaga te yonent bi nee na yàlla rëbb na kuy saaga ay waajuram ñu ne ko nan nan nan la nit di wawee bët bay saaga waajuram mu ne da ngay saaga waajuru jàmbur mu saaga sa waajur kon waxante yu ñaaw yi dana indi fitna muy saagante muy xuloo muy teesante muy nit ku am kilifaam fonk ko da nga ko koy fonkle yàlla sax nee na xërëm yi ñi jaamu xërëm yi bu leen saaga seeni xërëm ndax bu ngeen leen saaga man la ñuy saaga man yàlla kon déclaration Touba Gueye 2021 bii mooy woote jàmm woote dal ci réew mi li ñu bokk mënuñu koo séddoo Thiénaba gii fi gën a jege seenu bokk ak maam Cheikh Fall lu jege jege jege mbokki maam Cheikh Fall lañu Alxaaji Maalik ak Serigne Touba moom ñëpp a ko xam. ñoo bokk ci wetu ndey ñoo bokk ci wetu baay kilifa yëpp benn lañu kon njaboot gi ñoo boolewul seen bopp waaye kilifa yi ñoom dañoo boole seen bopp sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na ko yàlla dolli leer bi mu nelawee sëriñ Babacar Sy Mansour ba mu jaa ba mu jaalisee gis nit ñi naan xëlëf xëlëf xëlëf bëgg dal ci kaw sëñ Muntaxa lu mu leen wax sakkan na leen kii sakkan na leen kii waa ji kon ñoom xam nañu fa ñuy teg seen tànk kon maa ngi guddal li ma waroon a wax lu ma ci waxut maa ngi koy jéggalu li ma wax tam te waru waruma ko wax maa ngi koy jéggalu yàlla nañ ko tee teelewaat yàlla nañ ko teewewaat naga ni déwén te déwén daqal ñu ren ku ne xam na ne ren at mu tàng la ak daaw corona bi yàq na lu bari nawet bi ñëw gis ngeen ni mu demee àll bi ñun ñiy bay xam nañ ci dara àll bi amuñu dara kon at mu naqari la waaye yàlla la mu dencal ab jaamam moo ëpp nawet kon yàlla na yàlla wasaare ay xéewalam ci senegaal te jàmm ji ñuy waxtaane bu ñu ko suuxatee bu ñu ko sàkkoo Sénégal xéewal rek lay am ndax Sénégal kenn du añ bàyyi sa moroom kenn du reer bàyyi sa morom kenn du sol mbubb bàyyi sa moroom boo côté réew yi nga xam ne bopp sa bopp la Sénégal ñëpp benn lañu kon nañu suuxat jàmm ji loolu mooy déclaration Touba Gueye ci atum 2021 yàlla nañ ko teewee na gën a déwén wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa